discours du président de la République 3 avril mu jël ay mesures yu bëri yoo xam ne mën nañ ci euh, cité lu demee nekk quatre cent cinquante milliards dégg na fa itam lu tolloo ko soixante cinq mille emplois fas nañ koo jël si ndaw yi ak mu jëm si ay métiers yu fasantikoo ay wàllu mbay ak pavage yu demee noonu euh, tout d'abord euh, damay revenir un peu en arrière li fi jotoon a xew yàgg nañ déglu ngay artu ci économie réew mi que li mm-hmm. ñuy wax ak li am bokkuñu euh, mu mel ne événement yi fi xew dafay ñëw dëggal un peu li nga doon wax mais gouvernement bi li ko jiiñ mooy mbas mi alors en tant que économiste ndax da jàpp ne mbas mi moo waral euh, réew mi nërmeeru ba xale yi génn wala da nga jàpp ne économie bi yàgg naa nërmeeru mais nit ñi dañu ko dañu ko gisul xam naa <laughs> li tubaab di wax à euh, bon dos mbas mi lu ne mën nañ ko ko ji mais ñun avant mbas mi wax ma ban sénégalais moom mas sa dem hôpital guddi te newuñ ko place sa euh, sapeur pompier wër na feek malade ba mu dee ci biir otom plusieurs sénégalais ont souffert euh, ci manque manque euh, yooyu nga xam ne ay demande sociale la kon tey soo xoolee Sénégal économie bi du ma ne sax économie dafa nërmelu mais il y a une pauvreté galopante et latente euh, yéeg lu tax pour nga comprendre il faut nga def confrontation ñaar yëf bi ci njëkk mooy les revenus sénégalais ñii liggéey ku su néew fàllu ils ne s'en pas ndax bëri na koo xam ne tey su fayee location joxe dépense su këram fayal doomam muy jàng ndax dafa xew daanaka mënatul dimbale rakkam bi nga xam ne wala jarbaatam bi xam ne doon na ko yaakaar te mën na ko jàppale kooku mi ngi léegi daan dans problème parce que amatul ku ko dimbale muy rakk ji muy jarbaatam ñi léegi ñi nga xam ne nag liggéeyuñu constitue vers trois millions de petits sénégalais chômeurs ñooñu moom dañu amatul yaakaar c'est-à-dire que espoir un discours d'espérance moom manqué que euh, xëy na fa ñu jëm lii mën na ci am lii mën na ci am moi j'aurais suggéré au président de comprendre la que la faiblesse des revenus est un problème et que l'augmentation même des revenus euh, des salaires presque tey exigence la deuxièmement le coût de la vie. Dakar se dit, et le Sénégal, dans sa globalité, ça, euh, parmi, la capitale Dakar, mais le pays le plus cher, ou les, parmi les plus chers, les cinq pays les plus chers au monde. ndax fii ngay gis location boo xam ne nii trois cent mille deux cent cinquante mille léegi loolu moo lay may pukkus boo xam ne nii mën nga ci def soxna ak doom moins que ça doo ko mën or la moyenne de nos salaires soo jëlee la la bonne moyenne waxuma euh, euh, statistiques yu ngi joxe ay cent dix mille ak cent neuf mille waxuma moyenne boobu mais sooy xool globalement nous nous situons euh, dans un dans dans ci benn moyenne de revenu loo xam ne nii peut-être trois cent mille. cent mille. te loolu mënutul yor sénégalais donc une chose c'est d'améliorer les revenus à travers une augmentation de salaire. en promouvant l' emploi dana ñëwaat ci emploi. d' accord mais deuxième deuxième aspect bi. Mm-hmm. pour pour mu fekki ba le. d' réew mi tane. Mm-hmm. mooy li nga xam ne état daf koy contrôler te mu ñuy bëgg a rey muy la santé muy l' électricité muy loo ndox mi courant bi même jàng bi. Mm-hmm. dafa yàqu-yàqu ba nga xam ne nit ñi il ñëw ñu seen doom fayal leen. dama defe ne ak alimentation bi. ndax autosuffisance en tout man lay wax lii état am na lum ci moom am na lu ci sañ facture courant yi mën nañ ñu ko tëpp ci digg bi moo gën li ñuy génne xaalis bi nii de soo ko daggoon tey facture courant da koy subventionné nga dagg ndox da nga koy subventionné les sénégalais dañ koy yëg. mais mais mais mais professeur est-ce que loolu ak xëy na exigence bailleur de fonds yi nga xam ne du ñu bëgg état di subventionné xëy na yenn yi nga xam ne moo jëm ci wàllu social est-ce que état tamit amul contrainte bu tax loolu bëgg na ko mais du ko mun. mais ñoo fa dugal seen bopp ñun quand on Amadou Ba ba ma koy wax man leb bi bari na dañoo mel ni dama dama doon wax ne Sénégal dañ ko suul ba ci nopp yi daanaka li muy noyyee la dese. te boobu bi ma koy wax je crois que c'était en 2017 2018 le président Macky Sall gis nga sa réponse au 31 décembre ay ñi wax xamuñu dara moi je crois que ñoom ñoo xamul dara. waaw ah, si parce que ñoom lépp moom dañ koy bokk na alerte boobu bi ma koy def ay 2017 j'avais dit ci suñ kaw lañ jëm en quoi faisant yokk ciment yokk fer yokk nañ fii euh, des taxes sur le jus de fruits yokk nañ des taxes sur le téléphone yokk nañ diwlin yokkal ñu essence. qu'on n'oublie pas daal di dagg subvention bi dem ci courant bi ak ndox mi ne leen appliquer la vérité des prix loolu tax ñuy bëgg a dee ñun consommateur courant ak ndox. d'accord loolu lépp ci suñu kaw la jëm. parce que actuellement nii nii nii nii nii ils n'ont plus les moyens. ndax foofa ñu egg. ba nga xam ne léegi xaalisu Sénégal soo dajalee port aéroport nangam sangam bala ngaa fay salaire sax. fay bailleur de fonds yi quatre-vingts à quatre-vingt-dix milliards par mois. dogu lijjanti cent milliards de salaire par mois soo leen boolee ça fait trop et le Sénégal n'a aucune ressource su dul impôt